salaamaaleykum maa ngi leen nuyu ku ne sa tur ak sa sant di nuyu waa tele bi di nuyu marsa ambulant man yëpp waaw wax dëgg am li ñu métti ci bi daal leen la lii ñu def nii moom lii ñu def nii ak nu mu mën a demee rafetlu rafetlu wuñ ko moom ndax waroon nañ kaa mën a defee beneen anam bu dut bi waaw ndax fi mu doon nii tabaski nii di jub Tabaski gaa yi événement Tabaski gaa ngi leen di jub te ñii ñëpp nga gis nii ñii ñëpp ay boroomi kër lañ. ay boroomi kër lañ. te nii bu ñu ko def dana métti lool dana métti lool. waaw te ñii ñëpp tey jii kenn ku ne war ngaa man a jënd xar jëndal sa papa xar wala sa yaay xar xottil sa jabar ak say doom. waaw kenn ku ne war ngaa mën a def waaw. kon boog buñ bis buñ bis bu préfet wàññee nii suñ loxo bis bu préfet wàññee nii suñ loxo def ñu nii dana metti lool ci suñ côté ñu nag dañ koy ñaan rek ñaan dong lañ mën am ñu dimbale rek ngir yàlla may ñu may ñu ñu delluwaat fi ñu nekkoon ta wàcc tëli bi te wàcc tëli bi te wax dëgg am yéen xale yi ñu joxe respect joxe cër joxe yar man marché bi léeg-léeg dama fi gis loo man sax man man mi jaaykat bi sax dafa may metti dafa may metti ndax tëli moom ku ne xam ne du jaayukaay tëli ku ne xam ne du jaayukaay ndax façon kilifa gu ne mooy dugg ci dëkk bi kenn ku ne mooy dugg ci marché bi kon boog nañu joxe respect joxe dëj cër waaw ku fi war a ñëw ñu wàcc tëli bi bu ñu mënee may terduwaal bi bu ñu préfet mënee may terduwaal bi fi ñu dellu woon fi ñu nekkoon ñu delluwaat fi te yàlla rek a tax ndax tëbës gaa ngi nii di jub métti na lool lii moom bis mi ñu ko defee dana métti lool ci suñ côté waaw. maa ngi siyaare ñëpp di gërëm ñëpp di bëggee Matam laay Matam laay yëpp. billaay dafa metti bar suñ Tuubaa fii si jëmmam xoolal dëkk bi daa amul dara daa amul géej amul amul usine amul dara marché bi dong ma fu nekk marché bi kese bari Sëriñ Tuuba nanu bàyyi nanu bàyyi nu job nanu bàyyi nu liggéey mën noo sàcc mën noo mën noo jaay bon mën taxawaalu barke Sëriñ doo war a liggéey na nañu bàyyi nañu bàyyi waaye. maaleykum mbokki taalibe yi mbokki jullit yi yéen ñëpp ñoo ngi leen siyaar bu wér di leen jox seen wàccuwaay di métti li nga xam si moo dal suñ kaw ñun ñëpp nga xam si ñun ñëpp ay góor yàlla lan liggéey rek moo noonu ci marché bi kenn sàcc fi kenn def fi lu yoon liggéey rek moo nu fendi nga xam ne tey jii ñun ñëpp ku ne am na xel moo xam ne bu ko neexoon dugal ko ci leneen di commencé war ci 4 x yi mais bëgguñu wërsëg boobu ñun war sax bu di ko doxal di ko doxal ba mu mot oto ñu def ko oto ba mu mot ñu def ko place mhm. ba mu mot loo xam si leneen la ban man cee dimbalee mais préfet bu ñëwee fii ni defoo bëgg a jële fii ambulant yi nga xam ne ñoom ñëpp ay dóor katiwaar lañ borom place yi nga fi gis ñu yor place mhm. ambulant leen njëkkee waaw te garab goo maanaam garab gis nga marchand ambulant ak commerçant garab la ak ker mënuñoo tàggoo tey boo fi jëlee ker gi boo fi jëlee ker gi mooy jëlee nga fi garab gi commerçant yi xam nañ ci dara tey jii ku ci soqee ko benn yoon nga soqe wala ñaari yoon waaw kon ñu gën a xoolaat li ñuy def bu baax a baax nañ ko xoolaat bu baax a baax góorgóorluwaat xamaat bu baax li ñuy def te xam ne maanaam préfet na xam ne ñaari yi moo ne ci adduna bi maanaam kuy liggéey ak kuy sàcc ki nga tere mu liggéey nag yaa ne ko demal nga sàcc waaw bu liggéey yaakoo ni demal nga sàcc te wax dëgg fi fii góor yi fi ne yëpp pexe yi war a mën a jaar ba def leneen loo xam si lu dul loolu la bëri na waaw kon nañ ci gën a góorgóorluwaat bàyyiwaat xel bu baax préfet mu dawal yërmande ci ñun mu dawalaat yërmande bu baax fii am na fi góor yàlla yu ma xam yoo xam ni dem nañ ci gaali ay yoon yoon lu ko waral bin yëkkatee marché biit ku moo ko waral am na ñooñu faatu na am na ñoo xam si faatu nañ ñëwaatun am na ñoo xam ñëwaat nañ ci marché fii di ko doxalaat di xaaraat suñ borom kon nag buñ xamee ni ndox mii du aw yoon ñu ngi ciy dem yëpp aw mettitu adduna moo leen jàpp ak tolof tolof yoo xam ne coono yu leen teg moo tax ñu koy def kon nan góorgóorluwaat ba xoolaat li def di ko teg suñuy suñuy suñ sëni Sénégal yi ndax ñun dañoo bëgg doxal réew mi ëllëg kon ñi nga xam ñoo war a doxal réew mi ëllëg boo leen jàppee di leen torturer nag lépp loo gis ëllëg yaa ko waral waaw tey jii boo taxee gars yi commencé di dugg ci yeneen détails yoo xam ne du woon yoon te ñoom ñi ñëpp gëm seen bopp moo tax ñuy fajaru teel di ñoo fi ji marché bi ñii seeni waajur lan bàyyi ñii bàyyi seen i mag ak rakk di leen jàppale bari na ci ñoo xam si seen kër ñoo ko yor tey boo xëyee def leen nii seeni xel mën na noo wéet te fi mu ne gis nga ku wéet xalaat bu ne mën na koo xalaat te xalaat ba xalaat bu xamee ni bu ko defee mën na cee génn mën na koo def ak lu mu mën doon kon nan bàyyiwaat xel bu baax li ñuy def dawal yërmaande nan dawalaat yërmaande bu baax te xam ni maanaam ci ni yëpp duñ suusandoo faaw benn par benn rek ndànk-ndànk maasambilaa yi ne fi yëpp ku ne ci koo fëggoon xolam place la bëgg barki Serigne Touba yàlla na suñ borom mi xam ne nag mooy kattanal di dooleel defal nu tawfeex mu may ñu xolub mul muñ a ba mu jeex a jàmm ndax liiru benn yoon du ñaari ñoon teg nañ nu ko ay yoon yoon waaye suñ borom mi nu fu teg moo nu fi jëlee gut ñoom mënuñu nu fee jëlee maanaam dañ ni faxas nii rek ñu dem waaw dañ ni fi jëlee rek mais yàggat nañ ñëwaat ñoo ngi santaat bu baax a baax waa télé bi waaw ñoom sekk ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm di leen ñaanal tawféex wax dëgg yàlla gis nañ ni taxawoo marchands ambulants yi ñu ngi leen ñaanal télé bi doon dem jëm ca kaw ca kanam ci barke Serigne Touba maa ngi jéglu waat baax kàddu yi lu ci jub rek na ngeen xam ni sun borom la lu ci dëng ngeen xam ne jëmm ju xeebu ji nga xam moo amoon yéene waxal marchands ambulants yëpp moom la jërë ngeen jëf tey daal ñun marché Thiès fii ñun marché ambulant yi liñ fi teel metti na trop trop trop ba ca kanam yàlla man nag lii du ma ko jiñ kenn kenn kudul parce que fii fi nekk maire mooy ki nga xamante ne moo yéli marché bi maire ba mu toogee ba léegi ñun teguñu ko bët xam nga kañ lañ koy sego teg bët tey bi suñu bët xonqee bi mu jógee pour ñëw toroxal nu te loolu du yoon parce que tey président Macky Sall war na yëg lii ay doomu réewam jaar ci géej gi ñaata yoon ci yoon wi lu nekk ndeke ñoom coono ban fa daj bu ñëwaatee fii coono bu ko raw la ñuy daj fii te kenn tegunu ko nag lu dul man président laa koy wax parce que préfet moo ko yilif gouverneur moo ko yilif mair mi it moo ko yilif mm-hmm. Macky Sall dañoo bëgg mu geesuñu gindunu jàppale nu te yàlla tax te xam ne ñun ay doomi réewam lan ñun amul lu dul fii ah tabaski bii di jub uh-huh. xar yi ñu naan crise mondiale uh-huh. léegi yow nga yokku crise boobu yokku crise dafa mën a passé lii en tant que dëkk bi ñëpp yëg ko àdduna bépp yëg ko nga ñëw tabaski gi jub xar seer la loxo ñun yàlla dimbaloon ñun marché ambulant yi uh-huh. état bu ñëpp meloon njabootam yëpp meloon ñoom moom kon du defal kenn dara ndax ñun yaakaarunu kenn ñun yàlla lañu yaakaar buñ xëyee laal nekk ci li ñuy nekk nanu dimbali ñu liggéey rek ñun ñaaruñu kenn dara ah nañ liggéey rek buñ liggéey rek am li ñu bëgg ah waa jërëjëf soxna si kontaan nañ <laughs> métti na trop ndax boo xoolee tey boo xoolee tey da ngay xool jeunes yi fii ñaata jeunes xëy tey liggéeyuñu dañu ay soutien de famille ñu nekk ay père de famille tey xëy liggéey xam nga loolu metti na trop metti na trop parce que tey boo xoolee boo yee gis fi yëpp bi ñu ñëw ay vingt cinq mille trente mille lañ indaale woon ci marché bi tey koo ci xool yor na capital un million huit cent mille cinq ci biir marché kon tey bu ñu toogee nii nii nii nii seetaan boo yi nii ñu xëy toog non wax dëgg fa yàlla loolu metti na trop quoi metti na trop metti na trop trop war liggéey xëy toog nii non na trop. Mm-hmm. waaw mm-hmm. a séntu Sénégal jeunes yi nga a loolu métti na trop parce que boo xool ñi war a jàppale jeunes yi tey jii jàppale wuñ jeunes yi. ndax tey booy xool tey fii Thiès ana société yi amul société amul marché au poisson amul dara xoolal marché xoolal ndox mi fii li ñu war a wax waxuñu si xoola ndox mi fii chaque jour ci lii lañuy dund te ñoom ñoom la war defuñu ko mais chaque jour jóg leen dem leen jóg leen dem leen ba kañ. changé marchand ambulant yi xool fu mu leen mën a yóbbu mu yóbbu leen fa loolu moom la war parce que boo amee ay jeunes yu nangoo liggéey di ko ñafee boobu ba léegi war nga mën a xool foo foo leen teg ñu liggéey mais du nii lañ ko war a saafara quoi. léegi ñu lay sant di la gërëm léegi waaw euh, waaw di wax rek ñu bañ a seetaan booy yi jàppale booy yi booy yi liggéey parce que booy yi nangu nañoo liggéey euh, réew bu mel nii boo ko yoree jeunes yi di liggéey da nga leen war a jàppale nangoo liggéey parce que mënoon nañu defi leneen defuñu ko kon donc dañ leen war a jàppale ñu liggéey loolu rek la merci beaucoup waaw kañ maa ngi ziar askan wi di bokk ak yéen waa marché bi tiis bi ak mitit beeg jàqare bi am tey parce que xëy yeewoo sa kër sangu julli fa nga yaakaaroon a amee saw ñaq nga dem fa fekk ñu tasaare say bagage damm say taabal jële la fa loolu dara gënu koo metti ku ne xam na ne loolu dafa metti tey Sénégal boo xoolee jeunes yi nekk di ambulant yëpp ay chômeur lañ muy chômeur yoo xamante ne bi dañoo am jom bañ a toog moo tax tey ñu nekk di ambulant lijjanti seen vingt cinq mille wala seen trente mille di ambulant imaginer ki nga xamante ne bi dafa ñëw fii nii lijjanti ba am trente mille wala benn quarante mille dem defarloo ko puus di ambulant basé woowul mukk ci état xaarul lu ko état di jox xaarul lu ko état di financé pour mu liggéey moom moo contraire moom moo ut ay financement wu boppam xam nga nekk ci waar wi di ko ñafe di ko rayante pousse googu noonu mu liggéeyoon ba am ko quarante mille wala trente mille mu jël ko tey ñu jël ko nangu ko ci moom en plein de route nangu ko ci moom këpp bagage am ya xam nga mu perte bagage sax ataa da koo leb mën naa sax moom ko da koo leban fayagut borom borom di ko dàq ji ak bor mu war a dugal ca kër ga dara njaboot gi toog di ko xaar ak moom ëllëg mu war a doon dara ci réew mi te munu ko doon loolu rek dafa doy coono boo xoolee nag nit ñi ñu ngi naan ay gaal yi gaal yi gis nga gaal bu amee man maalaw bu ma amee paas ak keneen ak keneen maag kii ak kii ñun ñëpp dañuy dem xam la moo tax duñ fi toog di fi gën a troxe parce que fii gis nañ ne ñun gis nañ ne ñun carrément ñu deewuñu vie bu gën a métti ci vie yi la ñuy dund dañoo war a dund wala ñu dee benn yoon ñoo xam ne ñun carrément kat bokkatuñu état bu ñu boolewul nañu wax. xam nga bu nekkee dem nañ ba mun bokkatuñ ci doomi réew mi nañu wax du ñu ay sapone ay sénégalais lañ aussi ay patriotes nit ñu bëgg seen réew.